woteel ko ndax jàpp na ni woteel ko mooy tànn ngir koom-koomu réew bu Sénégal loolu tamit dafay daal di dooleel ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk sama ginnaaw ci daara gi ndax dafay daal di tax ñoom ñu xam ne ëllëg mën nañu doon ay sëriñ buub walla sax ñu dem ba raw ko. depuis 1960 ñi ngi koy dénkaane mu jural ñu lu dul yàq suñu njàng yàq suñu liggéey andil ñu fitna joo xam ne ni kenn xamul. foo koy nettali ay bakkan dee ci su fekkee nag ñun liñ daan wax dëgg la ci ñun kon bu leen jëlati seen i dooleeg seen alal ak seen baat ngeen di ko dénk koo xam ne nii suñ ne la woon dénk ko sa alal doo ko ko dénk su ngeen leen ko dénkee nag lu ci am da ngeen xam ne baye boo ñu nangu nag ne feek téeméeri at danañ ko yoraat te loolu li muy jur ak yàq rek lay jur nañ waxante dëgg waaye politique yi Sénégal yii loolu la ñuy def ngistal ak lépp lu baax lu nit di war a def ñu yàq ko loolu nag moom fitar ñi ko fexe leen ba ba duma ci am gàcce rek moo jëm ci wàllub campagne bi la fukk ak ñeent ci ay bankaas bokk ci mbootaay bi ñu tuddee wala bokk plateforme di jàmbal Sénégal daal di nañuy rek ñoom ñi la nekk ci kujj gi dem nañu fekk ji candidat coalition Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba ngir jàppal ko tànk ñoom ñi nga xamante rek dañu faree tamit ci yeewu askan wi nee nañu daal seen xëy seen xel mayu leen benn yoon ñuy daal di dem di jàppale koo xamante nii amul xam-xamu njiitu réew tey tamit amul benn projet boo xamante ni teg na ko ngir ëllëgub Sénégal daal di gën a mën a sukkaliku bu baax baax tey tamit meññ. ñi ngi doon janoo ak taskatu xibaar yi euh, démb foofu euh, la ca euh, ginnaaw raay ci wàllu boobu rek ka wax ci seen kàddu moom mooy Jibril Diop ñu teelu kook Ibrahima Khalil Diémé plateforme bi ñu boole nga xam ne moo waral tey lii am lu mat fukki parti ak ñeent juróom-ñaari parti ak juróom-ñaari mouvement yoo xam ne ñoo composé plateforme bi mu tudd plateforme jàmmal senegal tey nag ñu ñëw pour def suñu déclaration waxtaan ak sénégalais yi wax li ñu undu ak fi ñu jëm ak nan la nar a àndee ki ñu tànn mu nekk suñu kandidaa yooyu ñu war si waxtaan tey. may wax ni plateforme jàmmal senegal ndax ñëpp xamoon nañ ni senegal dafa nekkoon ci ay tourbillon yu doyoon waar ñu gis ni comme ay acteurs politique lañu waaye dañoo am responsabilité yu mag a mag a mag ci réew mi. élection présidentielle yooyu ñu jëm nag mu nekk benn rendez-vous benn homme muy benn kilifa devant la nation yëpp ñun nag ñu xool bi ñu dalee liggéey ak ay waxtaan ba déggoo ci nu biir. waral tey plateforme bi choisir la la candidature. de la coalition Amadouba président. président Amadouba ñëpp xam nañ jaar-jaaram ci administration ñëpp xam nañ tekkam ñëpp xam nañ teeyam ñëpp xam nañ yaroom. keneen tamit euh, dem jàppale ji moom il est di candidat Amadou Ba di soxna Awa Diop Mbacké ne coordonnatrice bureau assistance euh, li nga xam rek ñoom ñooy taxawu daara yi moom itam dem na fekk ji kii di Amadou Ba. lu ni mel mi nga xam ne gannaaw bi ñu doon jébbal ay ndimbalub xewlu ay njaboot goo xamante ni ñoo nekk foofu le eh, ca Pikine tey tamit moom mi le soxna Awa Diop Mbacké daal nay sàkku ci ndaw ñi ñu dal di eh, jël seen lépp rek teg ko ci loxoy Amadou Ba ngir jàppale ko ngir mu daal di falu bésub ñaar fan ñeent eh, ci weer mars bi ñu nekk dañuy daal di teelu soxna Awa Diop Mbacké ak Ibrahima Khalil Diémé maa fi ñëwoon 2009 tàllal leen loxo président Macky Sall tàllal ma loxo ma tàllal leen loxo ngeen teg ci seen loxo ci kaw loxoom ma boole loxo yëpp jébbal ko président Macky Sall ne la ma waxoon duma ci dañ ñaari mandat laa waxoon def naa sept ans def naa cinq ans muy douze ans damay dem mu ni am na candidat am te bi muy sàkk candidat am man damaa bokkoon ci candidat à la yi nga xam ni nag ñun ñëpp dañu doon wut. président Macky Sall joxoñ le premier ministre Amadou Ba. yéen nag man ngeen tànnoon maay seen président Macky Sall kon yéen ñi ma tànnoon toog leen ngeen déglu ma. moo tax nag tey donc nag ma réfléchir mûrement une une réflexion approfondie. ma jëlaat sama cër jëlaat samay compétence politique jëlaat sama dayoo tàllal loxo jox loxo ki ma tàllal loxo mais sama message tey dina wa leen leen am naa fu ma jëm Amadou Ba keneen tamit di mbërub coalition wala bokk candidat Aly Ngouille Ndiaye 2024 euh, mi nga woon foofu de ca diwaanu Tambacounda moom daal nay àddu lu jëm ci li nga xam rek moo soxal wàllub euh, lii di usine bi boobu di euh, Sodefitex doon euh, liggéey lu jëm ci wàllub coton ñu daal mooy usine boo xamante ni moo doon def ay liggéey yu mucc ayib lu jëm ci wàllu koto moom itamit Aly Ngouille Ndiaye nee na bis bu ñu ko falee dana fexe rek ba lii ji mbayuma coton bi dana ko gën a dooleel ma nga foofu ca Tambacounda Aly Ngouille Ndiaye ñu teelu ko ko Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou Leral TV Tamba

ci suñu programme dañuy bëgg a def une approche chaîne de valeur maanaam dañoo ñu bëggee ne dañuy ji konoom bi bañ a yem uniquement récolté. waaye tamit uh, moom Aly Ngouille Ndiaye gannaaw yooyu le diggee lu jëm ci wàllu mbayum coton bi mu war ko dooleel moom itamit nee na dina fexe ba kéem kàttan daal di gën a dooleel la ndaw ñi jàppale leen lu jëm ci wàllu uh, mbay mi mu di jàppale boo xam bu mucc ayib la ba tax rek ndaw ñi nga xam ñoo nekk foofu le uh, ca diwaan nga du ñu daal di jël yoonu mbëkk gi muy ndaw ñi nga xam ñoo nekk ca Tamba Goudiri Missirah ak Maka Goulibaly Panta mi ngi tontu ay laaju Amadou euh, Diédhiou ak Omar Gueye Moussa Omar Gueye Leral TV Tambacounda. waaye xale ay tamaate ak yeneen kon ils sont tous dans le milieu de l'agriculture dans des conditions peut-être plus difficiles ils auraient pu rester ici faire de l'agriculture mais sans sortir comme on a besoin mbokki Tamba yéen a ko wax war ngeen mën am ndox wax ngeen ne Faro yaa ngi leen exploité ko Fulo Ba bi yaa ngeen exploité ko dafa fa war a sonal ngeen exploité ko ndox yeneen bale yi ñii foofu ca diwaanu Tambacounda ak ñi nga xamante ñoom ñooy ay artisan ya fa nekk ñoom daal di taxawal ab benn bànqaas boo xamante rek dafay yëngu ci wàllu politique ngir rek daal di gën a mën a xeex lépp loo xamante moo jëm seen ak ak itamit seen yelleef lépp loo xamante ne ay sàkkuteef la rek ñu daal di ci taxaw bu baax a baax lu jëm ci wàllu pa artisanat ba mu daal di gën a mucc ay seen liggéey boobu ñu gis ci seen bopp El Hadji Abdoulaye Sarr nekk président chambre de métiers bu Tamba ñu teelu ko Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou dañoo ñëw daje waxtaan comme ni ma ko ci wàllu mhm. man yàlla dogal na man leen ko teg maa leen jiite ci lu yàgg ci wàllu développement ak politique nekk ci mouvance présidentielle di jox ko ko yàlla yemale ak nga xam ne déggal nañ euh, mais dañu fekkoon ñu nekkoon ci ay waxtaan donc gis nañ ne njaboot bi ñu ci bëri ñee ngi fii ñee ngi feneen donc au après ces élections que ñu mën a fu ñu dem ñun ñëpp ñu mën a ànd ñëpp mais euh, woowuñu leen fii pour jox leen ay ay directives sañ-sañ boobu mais nag am nañu sañ-sañ woo leen euh, wax leen ne tasaaro bi métti na te secteur bi njëriñ. kon il euh, boo xam ne mën a jox ñu ko tamit euh, di jëm ci wàllu wàllub euh, tourisme nekk foofu ca diwaanu Mbour amal nañu ab ndaje ñoom ak taskatu xibaar yi daal di rek lëj mbët tey tamit wax li nga xam ni moom la ñu dégg ci wàllub programme ci candidat yi nga xamante ni. ñoom ñooy joŋante njiitu réew moom itamit ki yor seen kàddu ah, di Gaoussou Guèye moom daal ah, gannaaw bi nga xamante rek déggoo naag ak ñoñom nee nañu daal la ñu bëgg rek mooy ah, njiitu réew bi fi war a toog bu bees dafa war a saytuwaat bu baax a baax lépp loo xamante rek moo jëm ci seen pasaakuteef mu jëm ci wàllu tourisme bañ daal koy gën a dooleel. waaye tamit ministre bi nga xamante ni moo yor wàllu tourisme bu bees bi ñu war a tabb dafa war a nekk koo xamante ni dafay bàyyeekoo ci ñoom waaye du nekk ab way politique. moom bi gaaw si Gueye nekk seen ki yor seen kàddu ñu teelu ko ak ñi nga xamante rek ñoom ñooy euh, ñi nga xam ñoom ñooy taxawal boobu boobule bànqaas di yëngu ci wàllu tourisme foofu ca diwaanu Mbour ñi ngi wax ci micro euh, Omar Ndiaye Babacar Thial ñi ñu toogal foofu ca Mbour juróom-ñeenti programme yi nga xamante ni bi jàpp nañu ne moo tane ci fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ni bi ñoom ñooy dagaan baatu réew mi ñu jébbal ko nag euh, xaatim ko nag def ko ci benn këyit tuddee ko mémorandum lu nañ ko mooy fa ñuy dogale di fa signé di fa wax mosuñu ñu faa boole mosuñu faa bokk ñu décidé nag di sàkku ci nguur gi ne ministre du tourisme bii di nar a ñëw ëllëg nañ ko jëlee ci secteur privé bi na doon koo xamante ni bii ku xereñ la ci secteur du tourisme la wala bokk koo xamante ni bii euh, activité économique xam na ko bu baax a baax a baax mokkal na ko ndax tourisme dafa transversal mais nag bu fekkente ni bi euh, ñi ngi décider bay jël lu lu ñu gënal lu suñu sago mooy mu jëlee ko ci acteurs yi nga xamante ni bi mooy les acteurs du tourisme bi si topp mooy euh, nguur gi dafa am ay institutions présidence de la république dafa bare ay conseil ñu bëgg tamit conseillers yi nga xamante ni bi ñooy dar président jege ko mu am conseiller boo xamante ni bii xelam dafa màcc ci tourisme jóge ci secteur privé mun a jege président am lu mu koy lu mu lu koy junj. conseil économique et social aussi mu am ko nga xamante ni bii ci tourisme bi lay liggéey bokk ci secteur privé bokk ci ñiy xalaatal ak di conseiller président bi. wooteeb njiit réew yi jàpp nañ ko dimanche bi ñu dëgmal yem ak ñaar fukk ak ñeent ci weeru mars ba tax na rek bànqaas bi la wala bokk observatoire bu ñu tuddee OCDEA ak i tamit seen lëkkaloo seen diggante ak beneen bànqaas bu ñu tuddee yi amal nañu ab benn weccoo xalaat waxtaan bu baax a baax lu jëm ci wàllu coow politique yi nga xamante ni day faral rek uh, di uh, tàbbee bésu uh, wote yi ba tax na rek coow lu rëy di daal di am ba tax na lu ni mel ñu ngi waajal ñaar fukki fan ak ñeent ci wote yi nga xamante war nañ ko amal fii suñu biir réew. moo tax ba rek daal dañuy tàggat ñi nga xam ñoom ñooy ndaw ñi seen ak ak itamit seen yelleef ak itamit naka la ñu mën a fàggandikoo lépp loo xamante ni moo nar a am euh, bésub wote yi te itam ñu daal di moytu wala boog fàggandiku lu jëm ci wàllub coow rawatina foofu ca diwaanu Ndar Géej ñu daal di dugal ab benn programme bi nga xam ne moo tudd euh, ñetti élection lu ni mel rek ñu ci gën a rek ñaax ndaw ñi ba bisub ñaar fan ak ñeent woteb jiitu réew yi daal fi mu nekk nii ñu daal di lépp loo xamante ni mooy moytu lu jëm ci wàllu coow. bokk na tamit ña ñu tàbb ci gox yeeku xaat yi mu di paay élu locaux Aïda Mbaye Dieng ak euh, Thiamba Seck ñoom ñu ngi wax ci li nga xam moom mooy sababu boobu leen dajee ci micro Adama Sall ak El Hadj Gueye ñu ngi toogal foofu ca Ndar dana éviter toute maa ngi gërëm ñëpp di gërëm surtout ñi nga xam ne ñoo waral daje bi muy OSIDEA muy india NDI eh, yàgg nañu di daje ndax eh, ñu fi dugal ci programme ñetti élection te bu ñu ñetti élection mooy élection locale yi ñu jóge élection législative yi tamit mais tey jii ñu nekk ci élection présidentielle kon ñetti élection la ñu ñëw nag di mottali yéene mottali yéene bi mooy gën a ñaaxaat xale yi ba nga xam ni xale yi ak mag ñi ñaax leen ba nga xam ni dañoo dem ci élection ci jàmm pare ci jàmm maanaam dimanche la élection yi bu nu demee élection altine ñëpp liggéey ci jàmm kii gañe gañe te di wax rek ne ñii ngeen tey jii na partagé te waxtaanal leer na ma ni moom daañu ko tas bu baax a baax a baax ba nga xam ni euh, jàmm dana am te euh, yi tamit xam naa ni parti politique yi aussi daañu dox seen waar ci ci loolu Euh, ba nga xam ni daal jàmm rek mooy am ci Sénégal. parce que état bi moom war a sàmm candidat yi moo war a sàmm euh, électeurs yi moo war a sàmm aussi le matériel bi nga xam ni moom la ñuy voté beneen bi mooy journaliste yi aussi à travers les informations qu'ils done je crois que mën nañu participer aussi pour euh, violence ba ñu am et surtout journaliste yi c'est surtout par rapport au résultat remonter résultats yi xam ne am ne bu ñu ko defee teel di ko teel a joxe. dana éviter toute manipulation. de boo ci mu am pàcc bu njëkk bi rek daal di jeex ñu daal di songu ñaareelu pàcc bi muy xibaaru tàggat yaram. xibaaru tàggat yaram dañuy tàmbalee ak équipe nationale bu euh, Sénégal xam ngeen ne ëllëg la ñu war a dajeek ñi nga xam ñoom ñooy waa Gabon ci match euh, xarito la. Euh, foofu lay amee ci réew France dëkk bi nga xam moom la ñu tuddee foofu lay ca Amiens match bi kon ëllëg juróom-ñaari waxtu bu tegalee fanweeri simili suñu biir réew. la match boobu leen di tàmbali euh, ñuy fàttali ñoom waa Panthère yu euh, Gabon bokkuñu woon ci Coupe d'Afrique bi ñu weesu ñoom waa Gaynde Sénégal ci huitième de finale la toogee ñu daal di wax Jeux africains yi am foofule ca Ghana ñoom Gaynde Sénégal yu jigéen yi tey lañu ñu jàkkaarloog ak waa Uganda. gannaaw bi ñu daal di lajjee ci demi-finale waa Ghana euh, gagné leen euh, kon fi mu nekk rek tey dañu daal di wut lii di ñetteelu place mu di pa médaille de bronze seen diggante ak waa Uganda ba tey foofile euh, ci Jeux africains yi am foofile ca réew pa Ghana ci wàllu pa athlétisme la ñuy wax ak 100 mètres et doomu Sénégal bi di Louis François Mendy daal di nay jël médaille door kon démb moom doomu Sénégal bi la. dafa daal di rek nekk ki nga xamante ni moo jël raw gàddu gi lu jëm ci wàllub lii di nga xamante nii moom mooy 100 euh, mètres et euh, daal di koy daw ci diggante euh, fukki seconde ak ñett lu tegal juróom-benn fukk ak benn kon moom mi ne Louis François Mendy moo daal di jël li nga xamante ni moom mooy médaille d'or bu ñu noppee ci loolu euh, ba tey ak triple so keneen koo xam ne athlète Sénégal la di Amath Faye moom it tam moo jël ñaareelu place championnat euh, moo jël ñaareelu place bi moom amaat Faye am ñaar fukki at ak euh, juróom-ñett nekk ki nga xamante ni day daw day tëpp lu soxal wàllu saut en longueur ak itamit triple so moo nekk si ñaareelu place bi gannaaw dem di nga xamante ni doon na joxante lii di final triple so bu ñu noppee ci kooku keneen tamit euh, di euh, ki nga xamante rek moom mooy doomu euh, Sénégal di Sali Sarr moom ci wàllu jigéen ñi moo jël li nga xamante ni moom mooy médaille de bronze. ci wàllu basket la ñuy wax ak AS Douane daal di nay gagné démb ñii di waa Port juróom-benn fukki bal ak juróom-ñeent ci juróom-benn fukki bal ak juróom-benn kon loolu rek soxloon fukk ak ñaareelu bëccëg championnat national bu première division ci wàllu góor ñi. waaye tamit ci góor ñi ba tey euh, ñii di waa DUC ñoom dañu daal di duma waa ASFA juróom-benn fukki bal ak ñett ci ñeent fukk ak ñett match boobu tamit démb lañ ko doon jongante foofule. ci stade Marius Ndiaye ñoom waa DUC jël nañu seen juróom-benneelu euh, ndam gannaaw bi nga xamante rek démb lañ doon jongante beneen match boobile. ñu daal di wax ci ki nga xamante ni moom mooy euh, doomu euh, Brésil di euh, Dani Alves xamoon ngeen ne rek caabi daf ko féete woon ginnaaw jamono yële ñu ko daal di jugé. ba yóbbu ko ci kaso ba waaye fi mu nekk nii may nañ ko liberté provisoire gannaaw bi ñu ko daanee ñeenti ati kaso yi mu war a tëdd ak genn wàll. moom mile ah, di Dani Alves may nañ ko daal liberté provisoire maanaam daal bàyyi nëgëndi ko ah, fii ak rek ñuy xoolaat li nga xamante rek moom moo jëm ci wàllub lii di appel ak itamit ah, li nga xamante moom mooy koppar yi mu war a joxe mu toll si benn million ci xaalisu euro loolu moo tax mu daal di génn kaso ñuy xaaral xaarandi rek appel bi nga xamante ni def na ko ñu war ko àttewaat mbokk yi foofu lañu daal di buuree xibaaru digg bëccëg yi di jaajëfal mboolem ngi nekkoon na ci euh, régime bi muy alaaji abc ak i tamit euh, Mouhamed Thiam ñu leen di jëfal ci teelu mbokk yi euh, Cheikh Diop moo togg xibaar yi mu jëm ci wàllu réalisation jaa jëf ñu yendu ak jàmm mucc ak mucc lay